Requiem en latin, les sopranes. Requiem aeternam, dona eis domine, requiem aeternam, dona eis domine, dona, dona, dona, requiem, dona, dona, dona, requiem,